प्रक्रिया xoolal non écoute c'est bon oui ma Karim yàlla direct yàlla voilà donc ñooñu fii buntu kër Barthélémy Dias comme ni ngeen ko gisee c'est barricadé oui c'est barricadé donc par euh, la gendarmerie donc euh, Barthélémy Dias mooy nii di waajal pour génn Barthélémy Dias a waajal pour génn donc euh, moo ngi moo nii ngeen gis ko Barthélémy Dias a ngi waajal pour génn donc voilà c'est barricadé par la police avec son drapeau. ak kan mooy chef bi c'est qui le chef. voilà ñëwal na le. ah voilà. le chef il arrive. le chef il arrive. Barthélémy Dias a ngi nii ci buntu këram. mon chef c'est vous. c'est qui le chef. Bon, écoutez. Ouais. Ce n'est pas la peine de chercher des excuses. Ce que j'ai dit, c'est très clair. nerf bi du dugg ci kër gi. gendarmerie bu ma bëgg a jàpp wala police bu ma bëgg a jàpp bunt bi mi ngi nii kenn kenn tëjul bunt bi c'est pas la peine d'essayer de créer ici des situations. Nous sommes dans notre droit et nous continuerons à résister. C'est notre droit le plus absolu. La police et la gendarmerie ne sont pas nos ennemis mais nervi du fi dugg. te police bu fi ànd ak nervi gendarmerie bu fi dugg ak bu fi ànd ak nervi tamit du dugg ci kër gi. su ngeen ma bëggee jàpp ngeen ñëw jël si ma maa ngi nii. ba gendarme yi song nañ song nañ jeunes voilà donc song nañ jeunes yi fii voilà le maire Barthélémy a fait déclaration. voilà. Donc voilà, le maire Barthélémy Diaz vient de faire une déclaration. Donc, euh, le maire Barthélémy vient de faire une déclaration en direct. tey ñooñu fii ci buntu këram voilà ñooñu fii ci buntu këram Ousmane Ngane